Bienvenue sur Salam Vision. jar na siyaare naa la jalaala naa la jamaala li mu taala rabbi samaale xoolal ma yaram baa ngi toog na ma koy siyaare उनका के के ने wa barakaatu am na loo xamante ni nag kenn dootu ko lam-laamee ci miim réew bu nee mim réew nag yenn ko dégg jëmm ji ngeen jàkkaarloo li nag xëy na nag tamit yàgg ngeen koo dégg yàgg ngeen koo gis waaye xëy na tamit jëmm ji tamit dafa làqatu woon ndaxte dafa amoon ci ay mbir yu mu nekkoon donte jafe woon na tamit dañ koy jëliwaat indiwaat leen ko ngir taataanal leen ko tamit ngir joxaat leen ko yéen ñi nga xamante ni yéen ñu ko doon laaj mu doon kilifa goo xamante ni kenn dootu ko laam-laamee ci miim réew amoon na ay yoo xamante ni jotoon na am ci ay ginnaaw ci yenn xew yi nga xam ne jotoon na am ci ginnaaw lu jëmoon ci wàllum nguur meeg yooyu yëpp tamit dinañ ci ñëw incha allahu rabbi parce que am na ay baat yoo xam ne doon na ko wax ci kon maanaam moom am na loo xamante kenn dootu ko laam ci mim réew kii ku ko xam-xam ko mu bokk ci sët yi nga xamante ni kenn dootu leen lam-laamee ci mim réew mu bokk ci askanu njare njare yi dafa am loo xam ne nag duma ko ci du ko ci guddal daal dama koy bàyyi mu nuyoo ngeen doog a xam ki nga xamante ni mooy kilifa gi nga xam ne dafa làqatu woon te ñu ko ndax ñun moom dañoo sob daanaka képp kuy jóg ngir dimbale jaamu yàlla foo mënta jaar dinañ la gëstu jëli ji la indi la ngir mën laa taataanal ba mbokk jàmm yi mën a am soxla bi nga xamante ni moom la gëstu ci moom ah kilifa gi namoon nañ la lool de waaye comme nga loxatiwaat nañ la ba indiwaat la tamit dañ lay bàyyi nga nuyoo. waaw di wax a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wal asri innal insaana lafii xusrin illal laziina aamanuu wa amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri ginnaaw bi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di ñaanal Sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru mu yàgg fi lool ànd wér di ñaanal laa ki nga xam ne mooy sa njaay mu yàgg fi lool ànd wér di nuyu mbokk Sénégal geeg kulugum di nuyu mbokk bitim réew yëpp di leen di ñaanal ñëpp suñu képp ku naan solo laa ilaaha bu baax a baax nga nga am fan ak wér di yaram di leen masaw coono ci ñi nga xam ne ñoo liggéey màggal Tuuba yëpp di leen ñaanal yàlla suñu borom mu dajee seet ngërëmu bu baax di lay ziyaar baax a baax di rafetlu rafetlu sa taxawaay ak jéego yi nga fi lépp loo xam euh, xam ne sama bopp lu bëriwul suñu koy wax surtout suñu allah yéen ko dégg noonu yow même boo waxul woon sax askan bi ñëpp xam nañ ci euh, fi nga bokk askan bi ñëpp xam nañ yow yaay kan tey jii ñu toogoon ay diir ñu jékki-jékki gisatuñ la nga am ci loo nekkoon sëñ bi. ci mbir yi nga nekkoon ba askan bi ñëpp toog di laaj ci sëñ bi fan la nekk fekk sëñ bi tamit dafa duggoon xëlwa sëñ bi li nga xamante ni da nga ko tëjee woon nekkoon ci mu nekk ci ay mbir yéeme am na sax yoo xamante ni sax fekk naa ko fi te gis naa ko fi nga am lu tuuti loo xamante ni dañ ñu koy taataanal ci li nga xamante ni ci nga jotoon nekk ba tax nga tëju woon sëñ bi. waaw xam nga wolof njaay li naan su dox jeexul waax si lu jeex. Mhm. te nekk ay doongay daara dañoo nekk. ay nit ñoo xam ne te xam-xam si lañ juddoo si lañ yaroo waaw xaalisu ngénte sax su ma juum bokk na te xam ne man xaalisu ñaan su ma juum bokk na si lañ ma ngénte waaw nekk naa nit koo xam ne maanaam lépp lu lu ma am rek maanaam xam-xam moom moo ma ko may kon nag ba tax xam-xam du doy waaw li naan jàng jàng ji du pa du du jàng du doy te du ma sa doy. waaw loolu lépp na li tax ngeen gëj ñoo gis lépp doon nekkoon di am gëstu bu métti nekk ci wut ak xam-xam waaw ginnaaw bi maa ngi njëkkoon dem réewu bu naa réewu bi ba ma fa jugee am naa fa presque ay fan fan ba ma fa jugee ma tourné jaar bu réew bu naa Burkina Faso waaw looloo taxoon ngeen gëj maa gis yenn yenn gis yi ndax loolu lépp rek nekkoon ci nekkoon di liggéey liggéey boo xam ne bis su ma ko sottalee jaamu yàlla rek incha allah rabbi seen aajo doon faju lan la bëgg daan am na gën a gaawee waaw ah, ci dëkk ñag yooyu dëkk ñag yooyu si laa nekkoon doon fa am ay liggéey yu ma yu ma fa def waaw sama diggante sama borom waaw incha allah rabi jëlee nañ fa séeréer boo xam ne nag képp koo xam ne waaw séeréer dina lëw lekk ba suur. tey jii ñu gis ni tey jii euh, demoon nga tey jii ci dëkk ñag yooyu noonu te dëkk ñag yi képp ku xam-xam ne seeni suuf am na loo xamante ni maanaam lu yéeme da cee am surtout ma seen i garab surtout ma laa tamit seen i dëkk. tey jii ñu gis ni yéen da ngeen fiy jóge fii dem ba foofu di jëli xeetu xam yoo xamante ni ñi nekk fii sax dañ fay ragal a dem tey jii ñu gis ni xuus nga dem nga jëli nga fa loo xamante ni lu yéeme la ba nga indi ko am na loo xam sax gis naa ko fi mais bëggaguma ko wan gars yi damay bàyyi ba ci tuuti ñu doog a am ci luñ jëm si tey jii ñu gis ni tey jii yaa ngi yor ay sunguf xeetu sunguf yi nii lan la sëñ bi. waa sunguf yi tamit bokk na te nga xam ne maam li gënoon a tax ma def te réewu ñag yooyu si la si la bokk. muy garabu omari mm-hmm. garabu omari ku ko xam ko ne xam nga lu naqaree naqaree faj la mm-hmm. lu naqaree dina dindi la da lu sonal lu sonal askan wi la mamaa yi moom taxum séddi mm-hmm. waaw garab gi koo xam ne jox naa ko ñetti takk yi ma si yow te képp koo xam ne jox naa ko du ma passé trois jours incha allahu rabbi mu fekkoon te yow mu nga xam bi da koy raxas ba mu set moom garab tamit day ndigg luy metti ak tànk yu room di tàng di xasat garab bi da koy faj waaw garab bi daal li ma leer ba leer ma képp koo xam ne maam am nga ëmari ci kàttanu yàlla suñu borom suñu la ko joxee garab bi da dana la faj garab bi bokkoon na li gënoon a tax maam mo mo ci réewu ñag yooyu waaw doon ko doon ko doon ko gëstu ji nekk na loo xam ne lu jafe faj la képp koo xam ne am jon gos incha allah rabbi bi dana dana la faj waaw bokkoon li xam ne moom xëy na sax yàlla kenn ñu mu bokkut ak kenn ñëwut a moom waaye man àgg naa àgg foo xam ne suñu borom sañ sañ naa ne mën naa ma naa ma garanté moom. ndeysaan ci garab gi laa koy waxee. képp ku ma ko jox incha allah rabi suñu borom dan la jox kàttan. ndeysaan tey jii tey jii ñu gis ni émeri tey jii nekk na loo xamante ne tey jii lu bari la ci askanu réew mi. ñu bari loo xam ne tey da leen di sonal tey ji da ngay gis jékki-jékki am koo xamante ne day dem ci benn diw ne ah diw dem naa ci moom fukki yoon ak juróom-ñett ba léegi mënta faju tey ji am ñoo xamante ne tey ji ñu diggoonte woon nañu ak ñoom ñoom sax ñooñu woo daanaka kat ah seen ay njëriñ njëriñ kat bañ demee ci moom la nga xamante ni moom lañ fa doon gëstu moom bañ fa demee dañoo tàqalikook lépp loo xamante ni jàngoro la woon tey ji ci ñun tey ji am na tey ñu ngi laajte numéro téléphone yooyu yéen a ko gis noonu suuf écran mu nekk 77 460 47 36 numéro suuf képp koo xamante ni fas yéene nga ngir yàlla suñu borom boole la ak moom ngir sa jàngoro a faju si kattanu suñu borom numéro ngi noonu dama koy bantuwaat rek muy 77 460 euh, foofu noonu tey tuuti tey ji am na leneen loo xam ne tey ji gis naa ko fi loo xamante ni lu jëm ci wàllum ndomba gi ndomba gi laa bëgg a xam ndomba gi lan moo waral ndomba gi parce que ñaari xeetu ndomba laa fi fekk am na yeneen xeet ndomba yi fi nekk mais ñaari rek ci laa lay laaj. waa ndomba gi moom yàgg naa présenté boppam moom du du kër gi. Mhm. ndomba gi nag ndomba njare la moom laa ko tudd waaw ndomba njare la ndax euh, li sama tudd ndomba njare secret moo secret njare pour mu leeral ko ñu xam ko. loolu mhm. tamit ñaari gaw dañ koy liggéey ba pare rek jox la nga tàkk. wallaahu akbar waaye kàttan yàlla suñu borom allah rabbi képp koo xam ne maanaam tuur ba nga jot si. Mhm. maanaam luy dox ci wàllum sa xeetu liggéey dana yokk ba nga ba nga raw ba faaw. te képp koo xam ne maanaam day noonu yow ci xeeti yàq-yàq wala liggéey ak yooyu incha allah rabbi dana ko wéete beneen bi si topp tamit wàllum yoon incha allah rabbi dañ dañ dañ si mucc ba kenn du la fa gis lépp loo xam ne maanaam li naan euh, maanaam euh, loo xam ne maanaam. ay ay eh, ay coow ay wax ak yooyu maam doo ko fekke da nga koy da nga koy umb daal maam maam day jëm ne nga jëm ne uhuh. fekk yaa ndomba gi yu mel noonu doo ko mas a fekk sa àdduna uhuh. ndomba gi yooyu lay dox uhuh. tey jii tey jii ñu gis ni tey jii loolu yaa ngi koy leeral mais beneen xeetu ndomba gi parce que ndomba gi dafa nekk ñaari façon ndomba yoo xam ne bokkuñu benn bi dafa am ñett gaaw yoo xam ne tamit dafa nekk ci biir am boo xam ne tamit dafa nekk gaaw goo xamante ni dafa wër ndomba gi xeetu gaaw gi xeetu lan la. waa ndomba ndomba gi mooy raw ku bëgg raw rek moo koy am waaw raw rek mooy soo nekkee nga raw sa àdduna uh-huh. waaw ndax beneen bi si nga solo solo solo ku la jéema lu bon liggéey la day faam waaw moom ndomba uh-huh. topp tamit soo ko takkee kàttan yàlla suñ borom man looy mën di xëccoo àdduna bi danga si teg sa loxo waaw fooy mën di nekk fooy mën di nekk di am loo fay xëccoo nga takk ko danga si teg sa loxo beneen si toog tamit mu yoon maam accès lu suma ay xeeti accident nga dugg ci oto yooyu tey jii su accident amoon ba oto yi mu xalañoo tamit yow da génn taxaw ne waaw xam ne doo ma su faatu accident ba si làkk ba si ndox waaw yooyu yëpp ndomba gi da da da la koy da la allahu akbar allahu tey jii ñu gis ni tey jii am na yeneen tamit yoo xamante ni te fekk nañ ko am na mbub goo xamante ni waaye mbub mi balaa ma cee jëm si tuuti dafa am ci loo xamante ni fa laa bëgg a jëm si tuuti dafa am ñoo xamante ni dañuy commenter suuf daan ne Cheikh Ndiaye dafa am loo xamante ni tamit dafa nekk li nga xamante ni da cee ay trop muy wàllum ñaan goo xamante ni ci wàllum visa la ci wàllum tukki. ci ñi nga xamante ne dañoo nekk bitim réew te am na ñu bari ñoo xamante ni tukki nañ waaye ba ñu jaaree si Cheikh Ndiaye jërëjëf dañoo dem ba ci biir lu ñu déposé mu mat sëñ bi loolu secret boobu lan la secret ñaan googu noonu parce que ñi ma koy laaj dafa mel ni ñi dañ la xam. waaw loolu moom turu yàlla laa si yokk bu gaaw boo xam ne ku ma si ñaanal du passé juróom-ñetti fan. ko akbar ma ñaanal la ko wàllum këyit moom wax dëgg yàlla ma si ñaan ñu bare baree baree baree ngi ngi ngi ngi incha allah rabbi képp koo xam ne maam déggoon nañ si ba ma ba ma déggantee sew ba ma defal si ay ñaan te kàttan yàlla suñu borom lan ngay ñaan loolu waaye wàllum wàllum këy loolu ñu mu si ñaan la baax na laa laa laa si ñaan am na yoo xam ne tamit ñoom ay sangat laa dañuy laa leen liggéeyal waaye li si li si gën a gaaw ak lu ma si def ñoom ci yàlla laa leen ñaanal ci wàllum këy sa tur rek nga ma jox ma ñaanal turu yàlla nga dem di jël say këyit nga jot si sooy man di nekk ci bi nag laa soo bëggee ay këyit su ma si ñaanee nga jot si wala nga nekk Sénégal du nga dem su ma signaler nga dem ak bi maam concours booy mën di def ak moo say laxasu lépp loo bëgg ñaan la ci côté boobu su ma signaler tey ji tamit ñu gis ni tey ji euh, wàllum isbet wàllum isbet sëñ bi am na ñoo xamante ni jot nañoo jaar ci wàllum isbet bi tey jii ñëw nañ fi ne gis nañu ak yow nga am loo xam ne dañ leen koo assuré ba ñoom dañoo dem gañe li ñuy gañe daal di ñëw sëñ bi sa diggante ak li nga xamante ni mooy askan bi nga xamante ni lu jafe day nekk ci ñoom muy wàllum SBET bi SBET bi moom sëñ bi naka ngay def ba li saxaar loolu nan ngay def ba jàpp loolu jëbal ko ki nga xamante ni maanaam am na loo xam ne daal du ma ci détaillé daal dafa yéeme waaw loolu nag SBET nag liggéey liggéey liggéey lay laaj moom liggéey lay laaj liggéey guddi laaj lay liggéey am naa isa bi moom euh, ba euh, Ligue des champions bi commencé yi sonal ma waaye dafa nekk loo xam ne moom xam-xam dëgg ak man a listixaar bu wér wér wér moo la si moo la si mën a génnee mm-hmm. waaw te fi ñu toll nii équipe yi su ma ko dee su ma ko dee xool li si man a ay équipe bu Chelsea wala wala Paris wala ay Milan euh, Royal ak yooyu mm-hmm. soo ko dee xool tey ji da ngay jël euh, turu turu équipe bi ak turu ak turu dëkkam ak ak bi nga xool ko bu dee bu dee dee score score stack bi moom moom laa bëgg joxe yooyu laa yooyu laa jël ma xool ko bu dee gagnant bi rek laa bëgg a joxe moom équipe bi rek la may jël. waaw waaye ci kàttan yàlla suñu borom bu dee score stag bi bu dee 2 1 3 0 4 0 6 yooyu yëpp mën naa la kaa génneel. allahu akbar ci yi. bu dee gagnant bi la yooyu yëpp mën naa la kaa génneel. allahu akbar yàlla xam ne li ma siy xool chaque jour kenn xamul lu mu waaw te fukk yu ma si yu fukk yu ma si xool yu ne. juróom-ñett ya dañuy dañuy dañuy gañ. dañuy gañ waaw loolu moom maam seet seet maam seet bu wér moo moo moo waral moom laa def fi mu toll xam gañe na waaye kii ñëw 2 1 3 1 4 0. dëgg moom. ah yéeme na de parce que. du ay caaxaan ne ko ndeysaan loolu loolu loolu daal du ay caaxaan parce que gis nga ko noonu dafa mel nag gaa yaa ngi commencé wax tamit ci wàll ci wàllum isbel yi de ñoom nee na dañuy laajte waat numéro bi waaw numéro bàyyi noonu yéen ko dégg te xam naa ni moom doon na loo xamante ni tey ji lu wér la sëñ bi indi tey ji te ci lu leer la indi tey loo xam ne tey jëlee na ko Mali jëlee na ko feneen ak feneen tey ji yéen a waaw yéen ñi nga xam ne yéen a koy laaj waat numéro baa ngi noonu mu nekk 77 460 47 36 numéro baa ngi noonu moom ngeen di jël noonu incha allahu rabi parce que am na ñoo xam ne moom dañuy bëgg bu ñuy def dara dañuy bëgg ngir xam nga duñ bëgg di jaar ci kenn wala keneen ak keneen sëñ bi moom ah donte am na secrétaire a amul secrétaire moo xam naa ne moom numéro bii ma leen di jox si kattan suñu képp ku ko woo moom nga siy jot mais sëñ bi avant loolu noonu tamit am na loo xam ne nag du ma ci du ma maanaam du ma def ak yow wax ji ba mu jeex am loo xam ne du ma ci dugg sëñ bi wàllum not dafa lëmbee réew mi wàllum not tey wàllum not tey ji sëñ bi laa bëgg ngeen ñëw nga am yu bari yoo xam ne dama ko ci tekkil tuuti ci wàllum not nu mu fa demee noonu tey da ngay gis ko ne bëgg nit mu dem ba ci biir dem ñaani ji ko ay parents bañ wala ñeneen ak ñeneen bañ tey ji kooku nga xam ne tey ji bëgg na tey jëflante ak yow tey nga xamante ni ci secret ak sutura boo xam ne tey ji bis bu jëflante ak yow ngir bëgg la nga xam ne moom lay sàkku ca ca kooka ngir mën ka am tey bu ñëwoon ci yow tey naka nga koy dimbalee sëñ bi waaw wàllum noonu nag euh, la ma si daan wax rek laa si wax waaw képp koo xam ne maanaam fulla ak fayda moo la tax a jóg mhm. kàttan yàlla suñu borom soo dikkee lan sa bëgg naa la ko si defal waaye képp koo xam ne ay fooki a jóg xam ne mënoo fexe fexe ma defaral lool waaw loolu du ma ko du ma ko def rek di ay caaxaan mhm. moom tamit bokk na ni nga xam ne bi ma tukki diggante euh, bi nekk Burkina mhm. na ki nga xam ne tamit am lu ma si indaale loo xam ne tamit ba naga ni sëriñ ci la nit ñi waaw mooy wàllum nopp li ma siy liggéey du passé ñaari fan. waaw ñaari fan laa la wax de. Mhm. nga nga nga nga gis résultat. ndax ku ku mu mën di doon nag ak loo mën di nit xam nga noonu dafa dafa dafa yaatu. Mhm. noonu góor bëggante kase la. loolu question bëggante. Mhm. maanaam nopp dafa dafa dafa yaatu nit ki moo xam looy mën di xëccoo wala loo bëgg ci nit wala leneen ak leneen. lépp lépp ci wàllum nopp la lépp ci wàllum la. moo mel waaye loolu lépp nag man. ci fulla laa koy defee ak ak ak ci fayda. waaye ci kàttanu yàlla suñu borom képp koo xam ne maam am na jafe-jafe yooyu suñ si déggantee mhm. incha allah rabi naa la ko liggéey defal la ko na nga ko bëggee ak ak na ak ak na nga ko képp koo xam ne liggéeyal naa ko mhm. bu liggéey boo xam ne maam mhm. liggéey liggéey liggéey bu ñu toj la waaw tey ji ñu gis ni tey ji euh, réew mi fan yii nii ci ginnaaw am na ci loo xamante ne jot na fi am mu jëm ci wàllum état bi ak wàllum li nga xam ne moo di assemblée bi xëccoo bi bari coow li bari ba ne lañ am na koo xam ne fal nañ ko koo xamante ni ñu bari ne nañ carte falu ko état bee ko fa jël teg ko fa muy président moo xool ngir troisième mandat ngir jël ko teg ko fa sëñ bi nga defee ne fi nekk nii lëmbi réew meeg état beeg ak wàllum assemblée bi tey ji am na loo xam ne jotoon na am ci ginnaaw ba nga am loo ñu jotoon téye askan bi yëpp dem ba ci biir kat dañu laajte numéro gan gi ñu ne leen ah numéro kilifa gi kat fan yi dafay néewut ndax dafa duggoon ci àll bi tey ji bi la nga gisoon tey ci wàllum état ba ak mbirum Ousmane Sonko ak guddi gi ñu ak présidentielle bi nga xam ne fa lañ jëm 2024 naka nga gisee nguur gi waaw te loolu waxoon naa ko samay vidéo seen arrière di ginnaaw. Mhm. yii yëpp avant avant ba yem waxoon naa ko. ndeysaan ndax waxoon naa isaa bi maam nekkuñu isaa bi moment yi ñu toll nekkuñu ci liggéeyum réew defar ko. Mhm. maam guddi yi ñu toll nekk. Mhm. waaw yi ak fi réew mi toll yii yëpp daan ko loolu rek moo ko waral ndax ñu ñu war a liggéey. isaa bi ñoo am jotu liggéey Sénégal. waaw Sénégal isaa bi duñ liggéey lépp seer métti ñoom. ndax isaa bi na ngay xool avantage bi ñu war a am ëllëg. essage bi ci programme boobu si la si la si la nekk. Mhm. waaw loolu tax ku ku yëgul maam soo mënee def ñaar nga def ñaar xam na lii xeeñ ñi sax saxaar euh, saxaar ñi xeeñ fu mu foogoo. Mhm. ndax li may gis nii baaxul mënut a baax ci réew mi. allahu akbar ndax coow lii may si muy muy ñëw nii. Mhm. bisu di raam. bisu gerte ñaaj bi rek. Euh, Sénégal dana dana dana dana ñaaw trop. tey jii tey jii ñu gis ni tey jii euh, keroog ci wàllum assemblée bi tey ñu gis ni lu musul am ci mim réew. te donte am nga loo xam ne déwoon nga ñu ko homme na tenue yi nga ne jël nañ leen gendarme yi dugal leen ci biir assemblée ci wàllum vote rek ñu gis ne assemblée bi que jël nañ ay militaire dugal leen fa daan leen pour ñoom ñoo sécurité affaire bi ci lu musul woon a am naka nga ko gisee sëñ bi. waaw loolu laa wax sànq man na la Issa bi li li raam nii suñu tëjee dana àgg ñàkk bi ndax Sénégal ku xam ku ne xam ko si réewum jàmm jàmm dëkkub tiraanga waaye loolu dafa mën a dañ ko fee bëgg a dañ ko fee bëgg jëlee. waaw te loolu daray àdduna jëru ko te loolu tamit xëccoo politique jëru ko te nguur gu dul nguuru yàlla suñu borom day jeex mhm. waaw te ku mhm. lu nafsin saa yaxatin mawti bakkan di def na si sóoraale biir biir biir bàmmeelam mhm. xam ne dëkkuñu fi dañ fi dañ te yàlla suñu borom mooy moo mooy fal mooy fool ku mu war a fal dan la war fal ku mu war a fool dan dan dan dan la fool kon nag musu man doon nan koy nan koy rafetal waaye xam na daal li ma leer ba leer mooy Euh, ñi nga xam ne maam moo tax ñuy pël di xëccoo di coow di jàppale ko bàyyi ah ku si man ne euh, Ousmane Sonko mhm. waaw moom sansam 2024 man gis naa ko te réew mi allahu akbar te kàttan yàlla suñu borom dama ci loolu laa koy ñaanal yàlla ndax saa bi am na lu ma doy ci moom waaw ndeysaan am na lu ma moom loolu laa koy ñaanal yàlla waaye sansam daal 2024 gis naa ko lan moo tax kilifa gu jug ci réew mi kilifa goo xamante ni maanaam kilifa yàlla la mbirum yàlla la koo ci toogal waxtaan mu jël baat ne Serigne Ousmane Sonko am naa lu ma gis si moom ci loo xamante ne baax na ci askanu Sénégal mbir mi lan la da ngeen gis ni Ousmane Sonko ku war a mën a liggéey réew mi la wala da ngeen gis ni Ousmane Sonko kàddu dëgg ci moom la féete wala lan la. waaw kaari dëgg kaari dëggu gis naa ko ci moom. Mhm. xam nga nit ki maam lim lim lim lim la wan a gun ngay gis. Mhm. waaye su demee ba toog nag boo xam ne mu lay wan waaye nit ki moom dan doo maanaam li olof njaare nit ki soo dee jàpp jàppee ko confiance. Mhm. ak gëm-gëm bu ma sëkk. man peut-être man loolu laa ko loolu laa ko jàppee. waaye li ma wan nii. dal na sama xel hmm. te am naa confiance bu ma sëkk ci moom waaw te euh, xam naa ne bi su demee ba jël réew mi tamit xam naa Sénégal yi peut-être maam duñ am duñu rus ci moom ndax mi ngi koy moment bi ñu toll mi ngi wane fulla ak faydaam ak jom waaw ndax nit ki moom fu mu toll fu ne maam la muy bëgg moment yi mu koy wanee da nga xam ne kii li mu hmm. bëgg ñeme na ko te am na hmm. si fulla te moom li mu nekk ni dakaa dakaa dakaa waaw am na ñu am na ñu ko bëgg te ñemewuñu ñu li mu nekk waaye moom isaa bi da dem ba jeex waaw da di koy di koy di koy jaral ni ni ni koy fitnaal lu ne ñu def ko. Mhm. kon nag koo xaw war nga xam ne koo maam li mu bëgg nii ñor na ko. Mhm. daa euh, maam mi yóbbu yóbbu ko fa fa fa Sénégal bëgg nii aaj ko. allah akbar kon nag li ñu koy ñaan yàlla suñu borom li mu bëgg nii. yàlla suñu borom sottil ko ko. alhamdulilah gëm naa ne suñu borom dana dana ko seetla. toog mhm. bu ma sëkk. dëgg la tey du ñu dem tey def émission ba émission bi jeex te am na loo xam ne duñ ci xuus sëñ bi dafa am loo xam dafa nekk sawet mu nekk mbubb boo xamante ni mbubb bu ñu yéem la mbubb bi dañ koy jël xatim ko mbubb bi mu doon mbubb boo xamante ni maanaam man mi koy tudd sax ragal naa koo sax wax sëñ bi yëre bi lañ bëgg a laaj lan la mbubb mi mbubb mi lan la mbubb mi. waaw mbubb mi nag mbubbum mbubbum kaaraange la. Mhm. kii kii kii mbubbum mbubbum fal la. kii loo bëgg sa sa àdduna pour ndooma tànk rek. Mhm. mu mi mën a la kaa mën a la kaa te yàlla. allahu waaw moo xam ngay commerce yi moo xam ngay politique loo loo mën def ci àdduna daal. Mhm. kii mën na la kaa te yàlla du daal. allahu akbar xam nga léeg-léeg nit ki dana dana dana am li bëgg. Mhm. day xëy suba rek loolu yàqu ñu ne dafa yàqule wala dafa daan wala nangam nangam wala dañ kaa yàq nangam nangam. kii nag moom da lay téye ba doo ba doo waaw mu mi mu mi nag foofu am njariñ waaw maanaam day fal ngir dal. wallaahu te ñu gis ni léeg damay gis ay mbër yu koy sol ku ci mel ni Modou Lo yére bu mel nii da ko doon sol ma am loo waaw ma am question bu ndaw wax ne dama la ko ci laaj tuuti mbubu bii nii mbubb yi Modou yi daan sol la wala lan la parce que yére bii dama ko xaw a xàmme. waaw yére bi du mbub mi daan mbub Modou Lo di sol waaye ki nga xam ne man maa ko liggéey di kay jox moom moo ko jox allah akbar allah akbar ki ma koy liggéey di kay jox man maa koy bind moom moo koy moo koy jox mu loolu moom moom sëriñ boobu noonu. macha allah su ma waxoon turam nga xam ko. allah akbar xam nga mbër moom fu mu a daanu a daanu sàmm. allah akbar mën loolu soo gisee avant dernier combat mu koy sol. Mhm. looloo tax mu koy sol da ngay sol rek parce que waat ko. allah akbar suñu noonu loolu lay doon fi ñu toll nii même yëngu soog soloon nii lépp sa yaram. ci lu bon day day toog. ah dinaa ko sole ji de. loolu lay doon. allah akbar yéen a ko. beneen bi si topp tamit. Mhm. wàllum wàllum wàllum wàllum seet. Mhm. Euh, li saxaar dama koy leerlaat man li saxaar la may def. Mhm. waaw képp euh, ne man damay li saxaar. waaw man euh, ramliwuma seetuma ci ndox seetuma ci suuf. li saxaar la may def. te kat nu yàlla suñu borom képp koo xam naa xooloon naa la. suwoo ba ngoon. incha allah rabbi lépp lu mu la wax mën nga kaa jàpp te xam ne xalaa ku li àll li la wax dëgg lay doon allahu akbar na te nga loo xam ne dañ koy jël rek jàng ko wala ngay jël rek di gis non non li saxaar dañ koy tërbiw ba mu wuyu la ba nga xam ne yow li saxaar soo soo tëddee defoo ko sax mhm. euh, am na am na say xame yoo xam ne mën nañ mën na say xam mën nañu ne wax li nekk ci moom wala ay saraxam wala leneen ak leneen nga leen nga leen kay wax loolu mooy li saxaar pas nga jékki-jékki rek jël turu nit bi fanaanoo wala di ko li saxaar yooyu mm-hmm. déedéet da nga dem ba nga xam ne maam lu ñëwgut lu ñëw lépp li saxaar bi da la koy wax man loolu loolu la may def loolu maa si am ay liggéey yoo xam ne maam macha allah mm-hmm. maam maa si jëf jëflanteel ñu ñu ñu ñu baree bare bare wér la wér la wér na tey ji yéen a ko gis noonu tey ji euh, donte tey ñu ngi ci dernier kàddu yi daanaka li ngeen gis noonu nga xamante ni tey ji moom mooy li nga xam ne moo fi jotoon am tey ji ñi nga xam ne yéenay laajte waat numéro téléphone bi moo nekk moo nekk 77 460 47 36 77 460 47 36 yéen a ko dégg noonu seen jaay njëriñ njëriñ ñu bàyyi la nga tàggatoo te nga defal ñu nag ab ñaan nag ci réew mi. yeneen yeneen yi ma yi ma jotoon a laaj yi ma jotoon a laaj. yi si ma ne wàllum garab yi. waaw yi su ma ne ay xat yi dox mu siti. Mhm. ak uh, asma. Mhm. yooyu dama si def ay ñaan ak garabu ngóora. allah akbar waaw xam nga ngóora dafa nekk loo xam ne maanaam dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa nit ñi dañ kaa soxla istaa bi. Mhm. ndax uh, feebar yu bari yi. ak lekk yeeg xet yooyu te yooyu baaxul ci ci ci ci doole nit. léegi togg yi togg yi nga xamante ne dañ koy togg léegi ci biir kër yi jël ay jëmboo sotti ci dem ba ci biir nga xam ne loolu tam de sonal xale yu góor yi tey jii ñooñu nga xam ne tey dañoo am problème mu ngóora tey jii buñ pare woon tey ngir bëgg jëflante ak yow ci sutura tey jii naka ngay def tey ba dimbal leen ci ñaata fan nga leen di faj. waaw bu dee garab ngóora moom. moom instant la moom moom di guddi ñu koy naan si nga gisee garabu ngóor yi may joxe. allahu ko waaw man garabu ngóor yu wér loo xam ne alxuraan kanam lañ ko composé moom laa moom laa joxe. waaw yor naa si yoo xam ne incha allah rabi su ku ma ko jox ko ne sa kër su daan naqare moom dana dana dana neex. dana neex beneen bi si toog tamit yor naa fas boo xam ne pour fasu ndigg la. Mhm. ndigg bi. met ak yaram wu tàng ak yooyu. Mhm. loolu rek moo ko moo a jóg. wallaahu ko tamit dëgg la waaye suñu yeneen émission naa gën a. non dé dé dé xam nga li naan li naan lépp lépp xajul ci cin li. dëgg la parce que ku rey moom ñaari ginaar xaj na ci cin li waaye koy ku rey nag ak juróom-ñetti moom xam nga loolu moom boo ko bëggee ñuul ci biir cin gi moom day metti daanaka lépp loo xamante ni tamit euh, dañ koy kii rek dañu koy tënk la parce que du lépp tamit waaw lañ mën a ne fàng pour mu leer te am na loo xam ne tamit nag dinañ ci gëru xuusaat tuuti incha allahu rabbi ci beneen yoon. waaw ne bayre bayre bayre yi tamit bari na ñu ma koy liggéey Euh, maa si liggéey euh, yeneen façon liggéey yoo xam ne liggéeyu gaalu moo xam nga bëgg bayre jigéen kase moo xam nga bëgg bayre bayre kullukum kullukum soo liggéey mooy ñëpp waaw mooy bayre duniyaa boobu maa maa ngi koy maa liggéey ñëpp ñëpp lay soob booy booy bulow maan yi nee nañ waxal sëñ bi ne ko nag loolu intéressé nañu bayre jigéen yooyu noonu bulow maan yi bulow maan yi su ma bëggee nan woote ci numéro bi rek boobu ma ma ma ma maa ngi si liggéey moo xam bàyyi tubaab sax dama koy dama koy dama koy am yoonu bopp bu muy liggéey léegi. macha allah waaw ba si noobu tubaab dama dama dama koy liggéey. macha allah tubaab bu rek bu jigéen. yooyu yëpp dama dama dama si def ay ñaar yoo xam ne macha allah képp ku ma ko defaral rek da nga si am daal kàttan yàlla suñu borom. alhamdulilah. alhamdulilah yéen a ko dégg loolu nga xamante ni moom la sëñ bi wax yéen a ko déggaat noonu boobu léegi tamit euh, xam naa sëñ moom lépp moom xaju ci cin li waaye dañ lay bàyyi tamit dañ lay kàddu yi rek. waaw di lay santaan bu baax di lay di lay gërëm di rafetlu sa taxawaay di ñaanal laat euh, fu ma toll ki may ñaanal rek te muy euh, suñu yaakaar dégg ëllëg ki fi nekk Serigne Touba di Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou di ko ñaanal mu di ñaan laat nga ne mooy sama si Ndao Sane Ndiaye yëpp bàyyiwu kenn kilifa diine yi maa lay ñaan laat yàgg fi lool ànd ak wér di ñaan yàlla suñu borom màggal gi ñuy génn. nga xam ne duggoon na see bismillahi rahmaani rahim génn see alhamdulillahi rabbil alamin ñu fekk ko waat ay déwéni déwéni ba at moo xam ne rek at mu ñëw rek day day day day gën day gën a yokk waaw waaye at mii di ñëw nag ñaan naa yàlla suñu borom ma rey lu ëpp ween nag waaw at mii di ñëw naa <laughs> ko ñaan yàlla suñu borom suñu doyen dëkk ma reyal ko lu ëpp weenati màggal bi. macha allah loolu laa ñaan yàlla. allah akbar. ñaan yàlla maa ngi bu baax a baax nag. macha allah màgg moom dangay ngay da gis naa ne dama yokkoon daaw. Eh. ren di lu ko raw yokku naab. Eh. waaye maa ñaan déwén tamit ma yokkaat lu ko raw a raw. waaw ween yooyu sax am naa sama mbir la rek waaye xam naa dama bëgg a rey day paase ween nag yooyu. macha allah waaw allah di leen di leen ma ñaan ma leen doole ngeen may sant ma leen doole. ndeysaan waaw kon nag ñi si ñi ñi santaat bu baax a baax a baax. macha allah leen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ko dégg am na loo xam ne nag xajul ci cin li mën a wax dañ leen koy taataanaataan rek ngir ci beneen yoon te incha allahu rabbi ñu ñëwaat ci beneen phénomène ak ci beneen domaine bi nga xamante ni tey ji seen yaay jël-jël tey na lañ ko tamit waaye numéro téléphone baa ngi noonu ba léegi tamit moo nekk 77 460 40 47 36 yéen a ko dégg noonu ñi nga xamante ne tamit da bëgg sutura ngir bañ tamit doomu adama tamit xamal leen loo xamante ni tamit lu ne fàng te kenn du ko jeex mën ngeen ko woo ci numéro téléphone boobu noonu listixaar nag moom xam naa ne moom lu mu judduwaal la tamit lu mu doon la tamit loo xam ne tamit lu mu mën la xam naa ne tamit incha allahu rabbi tamit foofu lañ koy yemale rek ci yeneen domaine ci yeneen réew ci yeneen yoonu jàmm Sénégal nag yàlla na fi jàmm am leen a jël dugal leen ci biir assemblée ngir bëggoon a taal naa la ngeen yaram baa ngi taw ndax ma koy siyaare Cheikh Mbacké Guéni Góor maa ngi lay siyaare naa la jalaala naa la jamaala li mu taala rabbi samaa Bienvenue sur Salam Vision